mbokk déglukat yi ñu ngi leen di dalal ci rajo Takaful ànd ak yéen ci série bi ñu duppee kemtaanu ceenu programme bi di jàppale askan wi ci wàllu koom ñu tuddee ko Takaful mooy amal waxtaan bi. fii ci dëkk bi di ceenu ci biir Mauritanie am na ku ñu naan xujja moom ak boroom këram ak njabootam ñoo fa dëkk ñu nettit leen seen nekkin foofee ca dëkk ba. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. op boo nekk ñaari fan yi dama demoon jaba dëkku teeru ndugg yenn xeeti lekk yi nga xamante ni mën na yëwanal see seen i rakk. indil naa leen lu neex. la moo si war a nekk. balbastik. <laughs> déedéet du balbastik de. du bonbon de xalaatal si war a nekk leneen. baba dama ko ñaan waxuma lu nekk si ay xeeti lekk yi nga xamante ni mën na na yëwanal seen dund yaa ak rakk. xoolal indi naa leen karoot chou pomme tamaate. nga jël benn tamaate lekk ko. waaw jëlee benn tamaate bi nga raxas ko ba mu set ak ndox laata nga koy lekk. waaw yow kenn yaa fi nekk. déedéet man ak sama yaay. sa yaay anamu. man si digg kër gi di bale. ah ñi bësi nga. mbaa lépp jaar na yoon. mbaa am nga lépp lu ñu soxla woon. waaw li ma soxla woon yëpp am naa ko de waaye njëg bi tar na lool. dëgg la léegi mi cher nanu te am leen yombul. suñu dëkk bii di Ceenu dafa sore dinaa la xamal lenn koppar yi programme Tocaful di jàppale niñ koy jëfandikoo jaar na yoon te dana tax sunu doom yi duñu feebar dinu wàññil njëgu faj bi lii wóor na ma suñu yokkute la ah yaakaar naa ni wax nga dëgg de lenn moom xam naa ko ndumbe moom bég na lool am tëyal légumes yaa ngi nii légumes yi yaakaar naa ni war doon si mën a togg ay bisu lëmm waaw tey ji nag moom lan nga nar a togg tey jii dañuy tollale mooy yamale waaye itam wutale suñuy lekk. mooy wutale lekk ak yamale lii daal da nga wax li xaw ma si dara xanaa programme bi di jàppale askan yi moo leen ko jàngal. waaw waaw moo nu ko jàngal. en tout cas li nga wax ni daal xaw ma si dara. yomb na xam wutale lekk mooy bis mu nekk nga togg xeetu togg bu nduróolu ak moromam tey dañuy togg ndambe bu am soos yàpp wow léegi mii nga indi yi dana tax mu mën tollal suñuy lekk ñu yokk si suppame ak carotte. ah yaakaar na bii toggateer na la neex lool. bu ragal dara. waaw lii mën na nekk. béy bi moo demoon si biir kër gi. ma dem jàppal jàppalu béy bi. Moodu Moodu jàppal. lii béy de jaaxal na béy bi xam naa ni. dama ko wutal chambre à coucher si biir kër gi. dàqal la génn si biti. Moodu jàppale bi ñu génne ko jàppal. jàppal jàppal bu la raw de karal taxaw si bunt taxaw si bunt bi. jàppal yow jàppal. jàppal karal bi noonu Moodu tëyal. jàpp bu la raw de jàppal. waa pap xoolal bay fii la bëgg a des xool lenk na mu yaramtaloo sama doom bàyyi ma yi li si ëpp dañoo am feebar kenn du leen bàyyi ci biir kër yi ñu nekk ak nit ñi dinaa defar ngédd su boobaa moom ma leen see tëj bay yëpp dootuñu dugg si kër gi su ko defee digg kër gi dana set wecc yee maa ngi dem fooy sama xarit dellu sil fii foo jëm danga bëgg a wàlla feebar sa xarit góor xanaa ah loolu mooy lan kon danga war a raxas say loxo bu mu set wecc ak ndox ak saabu ñun ñëpp dañoo war a raxas suñuy loxo ba mu set wecc sànq ba tey ñu ngi ci digg kër gi di dàq béy bi soo raxasee sa loxo ba mu set mën nga dem fooy su boobaa. kon maa ngi dëngu ci saabu. waaw góor a moodu bul fàtte raxas say diggante baaraam yi ak sa suufu wey yi. yaay nii la. waaw kay léegi mën nga dem fooy. ndumbe ndumbe. yaay yaa ma woo. raxas nga say loxo bi nga génnee si wanaag bi. dama ko fàtte. sama doom. di raxas sa loxo ba mu set wecc ak ndox ak saabu boo génnee si wanag bi saabu day rey doomu jàngoro yu nekk sa loxo demal nga raxas say loxo te nga ñëw ma wax la foo bu neex. ban foo nga may wax. léegi xool la waxal tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. tànk loxo nopp tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. tànk loxo. waaw. nopp waaw. bakkan waaw. waaw. ah woo yàq nga yàq nga yàq nga <laughs> commencé waatal ko ba waxaatal waxaatal xool xool ni may def xool tànk loxo nopp bakkan baat bët gémmiñ. tànk loxo nopp. Eh, tànk. waaw. waaw. waaw. bakkan waaw. baat eh, eh, <laughs> waaw. kay. ma demba ni ngay fooy ak nu me neex na ma lool nday tax su màggee mu xam lu bari si àddunaam. duñuy continuer foo bi duñuy continuer foo bi léegi foobu bi ñi la tëddee léegi fii ma teg sama loxo fan la. fii. nopp. fii. bët fii mooy bët. biir. fii. nopp. fii. gémmiñ. fii. fii ah. bopp. fii. biir. Eh, ndax na yaa ngi nax gone gi ni ngay tegee sa loxo dafa gaaw torop. papa nu tàmbaliwaat foo bi. kon ñu dem. waxal tànk loxo nopp. loxo nopp. bakkan baat. bakkan baat. bët gémmiñ. bët gémmiñ. xujja xujja. bisimilah koddu yow lan la lu xew yow gaayama looy jooy lan la. xujja sama liir bi Aline dafa feebar si feebar rek la dëkk tiit naa torop yaakaar nga ni mën nga ma si jàppale yow mi ma si ëppale xam-xam. mbokku déglukat yi dinañu leen digtal beneen waxtaanu xujja ak njabootam ci kéemtaanu ceenu ngeen man ko déglu ci rajo Takaful nekk leen ci jàmm